asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu noo bokk bokki yépp di leen siyaar di leen ndokkeel ci bis yi nu toll nga xam ne sunu jàmbaar ja ak sayxu saalixu Mbàkke ci la dellu woon ci dëkkale ji borom subhaanahu taala ñu di ko fàttaliku doonte xol yi du ko mas a fàtte xel yi du ko mas a fàtte ngir njariñ marqué gu marqué jamonom ak njariñ lu mu ëmbal mboolem julli jépp sëriñ Saalihu doomi sëriñ Tuubaa la suñu waxoon loolu yam yam ca képp mu doy sëkk doon yi sëriñ Tuubaa mu du ko féete kaw waaye muy jëmm joo xam ne ba mu jógee xam ne jaamu yàlla bu yàlla indi jamono ngir ngir am lum namm ci moom lu mu war a liggéey tax mu summi ko jëfal boppam jëf joo xam ne bu ko Sëñ Tuubaa jurutoon du tee bi mu am mu yeyoo ko Sëñ na ko benn waaye mu jëfal boppam lu ko may cër bi mu am donte Sëñ Tuubaa juru ko woon it muy ko marqué jamonoom doomi Sëriñ Tuubaa yi kenn ku nekk ak jagleek boppam kenn ko ne dox doxinu boppam kenn ku ne melokaanu boppam waaye bi ñu ñëwee dafa dafa mel ni ko delloo si Serigne Touba jëmmi Serigne Touba ju toogaat ci def la Serigne Touba doon def muy defar nit tërbiya lim defar ci mbooloo ci ay ndaw yàlla rekk moo xam ne mu toll mu ne su ko xayma mu ñëw séddoo ndaw ñi. wax wax ju rëy joo xam ne responsabilité la responsabilité bu bu bu rëy la gàddu jox leen ma ndaw ñi ma def ci ñoom la Sëriñ Tuubaa defoon ca mag ña lool lool lool responsabilité bu bu bu rëy la waaye ñi jëloon seen ndaw jox ko it wuñ ko ndax xam nañ la demoon ca magi Sëriñ Tuubaa ma nga ca ñoom ndax def na ko ca mu nekkoon koo xam ne ci ci jaamu yàlla kenn du ko ca dab koo xam ne daa daa tëdd nelaw guddi yu lay fanaane doo ko gis bëccëg fu mu tëddee nelaw it waxtu nekk mi ci boroomam ragal ko lool boole ko na liggéey ak tarbiya lim am ci daara taarix indiwul kuñ xam ku am lu toll noonu ci daara xanaa xel koom ju mujj ji képp fukki daara ak juróom daara ju nekk lu mat juróomi téeméeri ni ne fa te bokkut ay ndookaag lagan ak njurul ak feneen daar yu bare bare bari te daara yépp nag bu ñu mën a doon moo gàddu seenu dund gàddu seenum paj gàddu seenum col gàddu seenum njàng ñuy jàng bu wér di fa jële di fa mokkale alxuraan di bind ay kaamil waaye di fa sàkko xam-xam ba bokk ci ñi raw ci réew mi ci wàllu xam-xam loolu mooy ñi mu jonjool ndaw yi nga xam ne jonjowut ak ñoom it ba tey mu ak dunam jeexital ci ñoom lu jiitu sëriñ Saalihu boo xoolee dëkk yi gën a rëbb Ndakaaru Cees Mbuur ak yu mel ni ñoom ndaw ya fa nekk eh, sonesi bi booba leen rekk na ci seen bopp football dem plage fecc boîte de nuit yooyu képp doon seen yitte ci ci lool la ñu dox ndaw ñëpp nag dem boîte de nuit dem plage euh, football yooyu képp waaye liggéeyam tax na bi ñëwee ndaw ñi ñëpp saw nga xam ne dëpp dëkk ya gënoon a rëbb tey jii moo ëpp ay kuréeli xasida ndaw ñëpp jug te xasida de di sol ay caaya ak i bàyyilaat di watoo ay nelaw ay ay nel di jàng xasaayit nga xam ne boo demee ci ña ña xam tubaab yi jàpp nañ jekku na leen mën a nga xam ñoo gën a jàng tubaab ñu ay borom master yi am ay ay ay licence yi am fenn jàpp na ne moom na leen léegi sin sin Saliou rek récupéré ñooñ ñëpp def na ay jàngal xes day def na ay muri saadiq xam ne koo ci gis mën nga koo jàppi koo xamul daal te fekk te fekk lu ñu xam-xam na ko maanaam sax dem na ba doctorat kon liggéey bi mu liggéey dafa jeexital ñanaw ñi jeexital goo xam ne gu gu wér wér wér la waaye fexe ba fexe nag ba liggéeyloo murid yépp ci sëñ Tuubaa ndax sëñ Tuubaa moo daan ñaq tuur lañ eh, murid seeni ñaq murid dem nañ demoon nañ ba ñaqatuñ nga xam bëgg liggéey dañuy laaj rek kenn ku nekk ne na li ñu bëgg liggéey nangam ba koy liggéey muy génne seen addi joxe rek ne ci des ci seen liggéey sëñ Saliou moo jël murid yépp delloo leen ca tool yi ñaqaloo leen ñu ñu tuur seeni ñaq ci ci sëñ Tuubaa kon loolu nag mu nekk liggéey bu rëy boo xam ne liggéey moo tax kenn du ko fàtte mukk kenn du ko mas a fàtte moom mujj doomi Sëriñ Tuubaa yi gën cee guddi aw fan ëpp ci lum lu ci ëpp lum dund noonu la ci ëpp lum liggéey waaye nag ànd ak li lépp moo ëpp ñëpp taalibe ndax li ci muy doon muy doon Sëriñ Tuubaa mës a denc dara toora mi li muy bari bari suñ ko masaan bay ba mu àgg suñ ko sëfee ci oto yi du jaay di këram de da daa jubali ci fi nag fi nekk sëñ Tuubaa sëñ Modou Moussa nekk la muy bay la muy ne lépp sëñ Modou Moussa la ko yót sëñ Fallou lu mu mas bay moom la ko jox seeb laxat noonu saa bu sa oto sa ca ca ca ca tool yi ba noppi du jaar mukk këram nday jubali ci kër doomi sëñ Tuubaa ji ka fi nekk ka fi lépp la ko jox lam bay lépp sëñ Abdou Xaadir ba ci moom nag bu mu asee ci moom nag léegi lu mu bàyyee te njaboot Sëriñ Tuubaa gi la koy séddale nga xam ne kon mus sa musa musa denc dara kon cig tab kon sang dëgg dëgg dëgg dëgg mooy Sëriñ Saalix waa daal ñu xam daal jàmbaara ngoog joo xam ne xool yi duñ ko mas a fàtte xel yi duñ ko mas a fàtte waaye li ëpp solo ñu xool ci jikkoom ya roy ca te defar na it mbooloo mu dul jeex baleen fi ay Sëriñ Saalix yu baree baree bari yoo xam ne ñu ngay wéyal mission boobu ba tey dundal fi xam dundal dundal jaamu yàlla dundal lépp dundal dëkk bi dundal lépp yàlla na ko yàlla fayal barke Seex Xaadim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu